naa leen man du ma tricher. su may wax du ma gëstu sama wax bañul fenn fu leen neex yóbbu kenn du ma vaar. kenn déggul ma wax leneen ci parti bi man nag maa soobul sama bopp ñëw ci fas yéene ci liggéey te bokk ci ñii man di invité ñëpp nag pour que li nga xam ne Mohamed njaay mi nga xam ne moom dama àndoon ak moom di liggéey te te dem rek mu rejoindre parti bi sama kanam invité pour ñom ñu ñew rangé derrière président Diomaye Faye derrière euh, euh, premier ministre Sonko ñom ñu pour que Sénégal mën a jëm ñun liñu soxla ci état la donc ñun kenn duñu duggal ci ñuy sanni ñuy sanni xeer état état liñu soxla ci ñom la né ñun dañoo ay fi ci ñun. ñun war nañoo xam fu ñu leen di jëmale kon tey jii xam leen ne lu nit di liggéey ci biir Pastef bëgg naa liggéey lu ko raw donte maa ngi soog a ñëw fas naa yéene liggéey lu ko raw. ñun nag ñu ngi liggéey ak Pastef ñu ngi liggéey ak parti au pouvoir fas nañ yéene kenn duñu ci man xam nga li may wax suma koy wax waruma tiit waruma gestu parce que fii chauffeur yi xam nañ ne Pam Ndour du kuy daw combat kenn du ma vaar du ma wax lu ma xamut du ma wax ci lu ma nekkut Sonko bi ñu gañee réew mi man Pape Ndour ci ëllëg sa man maa wax ne xaaruma ku ma jël si xaaruma ku waxtaan ak man man jël naa sama mbooloo ñama ca mënal dara ak man sama bopp dem range wu ci ginnaaw Pastef yaakaar naa ne lolu bu mu ko waxe fi betul ken parce que xamna ñi mo am. ànd nañoo ak yow ànd nañoo ak Ousmane Sonko premier ministre président du parti Pastef mané ciow li jeex na. waaw li dess moy dimanche yéen wa Daaru salam gor ak jigéen mag ak ndaw. comme ni ko daan defé dinañ gaare fii ay oto man di leen wol di leen yóbbu ca boole nag ñoom alaaji ñii ñoom alaaji Cissé di yóbbu leen ngeen wote ak ñoom caat fay ñoom ñëpp ñu génn ngeen génn balaa midi ñu defal leen bagage man nag man nëbbuuma man dama ne fang ndax yéen ñii dëkk Kaolack mhm. gis ngeen li ma def yéen ñëpp yéen ko seede tooñ ma jaay ma doole tëj ma ci kaso ma génn ñu takkal ma bracelet waaye ma dina wax ne nag bracelet boobu Sarr na toog ko am na ci taxawaay boo xam ne bii maa ngi koy sant di ko gërëm waaw nga jóg nga jóg Sarr tax naa ko dégg kon madame dama lay rassuré lay rassuré rek ne la fii fii Daaru Salaam ci jëmmi boppam danañ la woteel à quatre-vingt-quinze pour cent loolu mën naa ko imaam yi fi ne borom kër yi fi ne sëriñ daara yi notable yi personnes ressources yi maa ngi nii jéem a ko ngi nii sama wet day jàppale Sonko yëpp dinañ la jàppale incha allah yal na yàlla may ndam ci barke alxuraan man kontaan naa bu baax sa ñëw bi am na lu mu def ci man soo déggee ni may wax sax nga xam ne si un peu souffrant waaye nag dara dem ba jeex rek. Euh, tàmbali nañu ci bisimilah rahmaani rahim àggale nañu ci. alhamdulilah rabil alamin xam ngeen ne tey moo doon suñu date mooy le 13 bi nga xam ne lañ doon tëjee ñun suñuy caravane euh, ñu def nag euh, quartier wu Kaolack yëpp yëpp yëpp yëpp euh, départ nañu ci tàngoor wax dëgg yàlla mais agsi nañu léegi ci guddi gi la ñuy doog nii mais wax ji benn la ci terrain bi

di remercier euh, patriotes de remercier les responsables de remercier les qui de nga commune mais nous nañu Kanda euh, remercier aussi euh, ñi nga qui ñom biñu yégué li ñuy def ci terrain bi ba légui dañoo ñëw tafu si ñun ñu and ak di docteur Cheikh Dieng ah,

moom mooy mandargal déjà seen euh, seen njiit di ko remercier moom itam di ko wax ne jàpp na ci ci bés bi euh, képp koo xam ne rek accompagné woon nañ ci bés bi muy chauffeur yi muy sécurité bi muy muy yéen ñii nga xam ne yéen a yéen topp boobu ba léegi jël affaire yi en sant nañu ñëpp di gërëm ñëpp su amee li nga xam ne ñu ngi koy wax nag mooy gannaaw bu ñu defee liggéey bu rafet bi Nous ko continuer ni de di demander population kaolackoise ak képp koo xam ne yàlla dina ko may mu seetaan lii yaa xam Kaolack nga dëkk ak foo mënti ngay sénégalais wala sénégalaise di la wax ne le 17 inshallah, allah rabbi dañu bëgg une forte une forte mobilisation ci urne yi dañu bëgg am taux bu élevé bo xam ne ko am ci participation élection bo xam pourcentage bo xam ne ko am parce que bi yone le président Ousmane Sonko nak moy suñu tête de liste moo joxoñoon bi mu joxoñee gis nañu li ñu am mais cette fois ci moom moo soxla kon dañ koy dañ koy delloo njukkal remercier nañu ñëpp wax dëgg yàlla di baaluwaat ak ñëpp di ñaan yàlla rek euh, au soir du 17 incha allah novembre ñu jaar fi ñu daan jaar rek incha allah en tout cas li ñu mbebet mooy les cent cinquante euh, les cent cinquante députés pourquoi cent cinquante parce que ni ma koy waxee dëkkandoo jàmm si gën bu ñu jëlee cent cinquante quinze yi sa des rek ñu ñu xawal lu ñu def rek ndax dëkkandoo wi ah ndax affaire yi mën a neex du noonu jàmm ak xewul si ñëpp maa ngi koy koy ñaanal ngeen yegg seen kër yi si jàmm ak ñu ah ñu ñu déggantiwaat suba liggéey bi nak yemul fi day continuer parce que amna euh porteur de voix yo xam ñom ñoom euh, caravane seetiwu len waaye da ngay sol sa dal doxit dem di séti den té dañuy mottali suba rek inshallah kon ñu bayyi Ahmed Sy mu defal ñu un peu compte rendu ci ci ci itinéraire bi nga xamné jaar nañ fa wax deug yalla liggéey bi rafet na en plus euh, de cela ma ngi félicité équipe bi yépp ma ngi félicité chauffeur yi parce que toogaay beeg dawal bi metti na te fi ñu jëm fi ñu ba fi ñu ah vraiment ça nous a pris beaucoup de temps yoon bi metti na c'est évident que ni aussi yoon yi mais quand même ñoom ñëpp def nañ effort concentration ba dara xewut alhamdulilah sant yàlla ko euh, en plus maa ngi tamit félicité di remercier tamit quartier ñu jaar yëpp parce que quartier ñu ñu jaar ku ne ñëpp génn nañ vraiment mobilisation bi rafet na mhm. liggéey bi rafet na sécurité yi aussi tamit chef Mbodj sécurité bi wax dëgg yàlla euh, li ñuy laaj ci sécurité def nañ ko muy d'abord discipline discipline ba pay di réglementer li ñuy def di moytu contre sens contraire machallah vraiment c'est à féliciter merci beaucoup mention spéciale à vous euh, légui nak par rapport ak itinéraire bi dañ Kanda lañ ko jitt ñëkke fi nga ko jógee fii bi ma jógee quartier bi fi en face Orabank dañu def Kanda après abattoir après ñu dem garage Nioro bi ñu jógee gare nak ñu dal di dugg ci marché central bi fi par la suite ñu dal di dem euh, Mérina Mbaba Mérina Mbaba ñu dam dal di dem Coof ak Bambara ñu démé Coof ak Bambara après ñu génn fa après ak wax dëgg Yalla ñi ñu génnoon na neexon na lool bi ñu jógee fofu ñu dem Gan jaaré ko xaxum dal di génn noonu pour jaar euh, Okas dal di dem euh, Parcelles Assainies dal di dem aussi jaar nañ Sara IPRES bien évidemment après bu ñu fofu ñu dem Bonkere dem kundam dem Kasnack vraiment mujjé lew après ñëwaat fi QG ñu ngi fi alhamdulilah destination finale QG. vraiment ñu ngi remercier une fois ñëpp di féliciter ñëpp duñ duñ fi ñëpp nak lu yàgg parce que fim mu nekk nii guddi te coono yi bëri na merci beaucoup.